doo génn rek ñi ci bâtiment yi nekk noonu ci ginnaaw parce que bâtiment yi kenn dëkku fa gars yi ndekki foofu lañ nekkoon xale yi gisuñu leen dañoo génn rek ñu song leen ak ay jaas yi di dóor man damaa dégg yuuxu yi rek ma génn. noonu gaañ nañ leen kay ci ginnaaw jaasi kay ku ko dóor kay moom nit di nga gaañu surtout jigéen waaw barki démb la waaw waaw lii démb encore encore mbuurkat dañoo sonn sonn lañu def yooku nañu def nañu lu ne waaw dem nañu plainte nag euh, gendarmerie waaye gis ñu leen fii tamit loolu tamit ñu ngi ñu ngi leen di ñaan tamit. ñëwuñu fii waaw gis ma leen fii. maa ngi ñaan daal ñëpp ñëpp nañu ñëw jàppale ñu ci waa Mbourkat ñëpp dañu ñëw daal wàlluñu dëgg yàlla maa wax nag mais wax dëgg yàlla lii dafa metti bàyyi sa njaboot des fois boo génnee sa sa sa xel du dal. dañoo ragal dañoo dañoo tiit ñun waa Mbourkat dañoo tiit parce que bëccëg sa da ngay génn sa ñu lay agressé parce que 19 heures et demi xam nga kooku guddeegul guddeegul gee sa julleeguñu ko mu am lii lii fajar la fii jëkkoon nañ fee ñëw jël seeni portable loolu passé dañuy dañuy dog a dugg ci kër yi di def euh, sambabo yi di def njaaxum yi ñuy def waaye man mii di wax ak yow dem naa jaayi fii ci rëbina bi di ñibbisi ànd ak sama doom ñu ñu jaayi ba njaay ma jeex ñu mbéj ko nangu nangu poset ba dafa daanu bi mu daanoo laa geesu xam ne daanu na ñun waa Mbour 3 bu ñu dimbalee ci ay làmp dimbaluñ ci sécurité ñu jël parce que boo footee weer fi ñu weri ko nga yónn sa doom ñu dogale ko duma ko nangu xaalis ba problème yi ci mbuurkaat metti na trop kon ñu ngi ñaan yàlla di ñaan yonante bi di ñaan euh, gouverneur ak ak ak préfet mu dimbali ñu ngir yàlla ak yonante bi ndax koñ bi am sécurité amul benn sécurité koñ bi amul ben sécurité kenn bu timis joté kenn dootu yoni sa dom té jabot mën ta bañ a ah, so yoné sa dom ñu duma ko nangu la yor so yaayé ba ñoo ñu dogalé la té ñun ñoo tok ndax amuñu amuñu ci dëkk bi ci all bi lañ am kon ñun tam suñu sañoon ñu dimbali ñu parce que luñu luñu ñom gouvernement bi luñu japp rek ñu jappalé len ci kon ñun war nañ ñoo jappalé ta yalla tax ndax amuñu doole. gars dañ fa ñëwoon dem ci kër gi. daal di dugg ci biir kër gi bañ duggee ci biir kër gi ne ma leen ma génn sama kër sama biir néeg ba fekk si leen ci véranda ba ko boo ñëwee nag si laa fekk ñu attaqué waa kër gi commencé leen a commencé loon a sonal comprendre may fi ma naan lan la lan la gars yi bi daal di may pes pesu jaasi bi fii quoi dóoru jaasi bi dafa ma ko pes fii waaw ci kanam gi après si la ma ko pes fii quoi ma daal di kii léegi nag keneen ki pesaat ma ko fii quoi après sama loxo bi nag moom dammul nag daa rek ay 5 heures du matin ah ay 5 heures non du mel ni moom mosu fi am xanaa am na yoo xam te ne ay sàcc yu ndaw rek ay jël ay portal wala ay sàcc ay xare yu demee noonu moo daa am si koñ bi ko parce que ñoom dañoo laaj dugg si biir di laaj tax ana xaalis ana xaalis man leen yoruma xaalis xam kër gu mel nii doo fekk parce wax dëgg yàlla man yoruma dara koo xam te ne si day taabu taabu koo xam te ne si day yelwaan comprendre amul dara lu mu lekk boo ñëwee ne ko xaalis tamit da koy rey rek armé nañ parce que yor nañ ay jaasi ñu yor ay fétal taxaw bon luñu wa kër ga dara ñu né mënu ci ñom dara après wa vraiment dal bëgg nañ ko ñuy dimbali ci sécurité dal bañ xëyee ci lañ dem police parce que man sama loxo mo doon metti ma mu jé dem police eh, euh, hôpital wa ah, hôpital laa nekkoon boobu léegi ñun ñi association bi koñ bi ñun ñoo dimbali suñu bop ba am ay fay ay quelques lampes yo xam te ne dafa yàqoon ñun ñoo ko jéem a suñu bop yi itam am yoo xam day ya tak dafay gouvernement bu mëne dimbali nak nañ dimbali ci éclairage vraiment loolu la ñuy ñaan daal. non jëluñu fi dara nag à part euh, am na kii maire bi am na xaalisam tuuti bu ñu jëloon yor woon gars yi jël ko parce que fii amul dara. amul dara kër gi amul dara lu amul dara nag moom wax dëgg yàlla mënoo fa jël dara xanaa dañ ñuy rey rek mais ku amul dara moom amul loo lekk wax dëgg fa yàlla dañ lay sonal rek parce que fii boo xoolee ay néew door rek fi dëkk. taxale rek di jóg ko wàcc man mii mécanicien laa garage laa nekk. di doon sama doole di wut lu ma am comprendre mi aw ma dara lo xam te ni yor naa ko wala demee na mais mécanicien laa rek di dem ak bon am sama jabaru mag bi tamit dañ ko dóor ay jaasi tàpp ko ni yaram bi am na sama benn copain tamit fii la fanaan démb fekk chauffeur la woon moom it dóor nañ ko fii jaasi bi fii mu toog waaw si beneen rakk bi tamit jibi ñoom ñu dóor ko fii ci loxo quoi cinquième fois ñu fii ñëw ah dem nañ police nag def nañ les premières pas def nañ déclaration plainte nañ contre X waaw ah, man woo naa ñaari maire yëpp woo naa maire ville woo naa maire Thiès Ouest tamit wax naa leen fay parce que lëndëm bi day pousser pour gars yi di ñëw te dafa sori teg ci ah, bëgg nañ auto police police parcelle buy rondu buy def patrouille mu ñëw dugg ba ci biir bool ci biir mbuurkaat sonn nañ daal sonn nañ vraiment sonn nañ fii agression yi ba pare euh, ay jigéen rek dañuy dugg kër goo xam ne ay jigéen moo fa ëpp ñu dugg fa parce que xam naa ne avec yeeg affaire yooyu la ñuy xalaat te loolu vraiment ñun dépasse nañ insécurité boobu daal loolu lay lancé autorité yi di wax en mairie ville ak mairie Thiès Ouest bu ñu ñëwee ñu jàppale seen i population ñu ñëw jàppaleen ci cas mel nii